الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون أيين mbokk jullit yi gannaaw ba ñu santee suñu boroom ci xéewalam yi mën te fekk ñu ngi koy ñaan mu julli ci suñu yonent ba mi nga xam ne moom la yónni woon ngir mu jàngal ñu naka la ñuy jaar ba am suñu ngërëmal boroom ba mucc àdduna mucc àllaaxira yal na yàlla julli ci moom ak njabootam ak ña koy roy ba ila yawmi diin ñu ngi leen di dénk ngeen ragal yàlla ni yàlla yeyoo ñu ragal ko ko kenn ci yéen bu mu dee mukk lu dul fekk na mi ngi jébbalul boroomam ay yéen mbokk jullit yi suñu boroom day moo wax ci téere bu tedd wax joo xamee ni nii ah la ca jiitu jullit ak yéeféer ñépp bokk nañ ko gëm ca moo ne kullu nafsin zaiqatul mawt bépp bakkan day dana man dana mas a mos loolu ñuy tuddee ak dee mbokk loolu amul ñenn ñu ci sikk sàkka Staline ci yéefir yu mag yi jiite woon àdduna ba ca la bokk daana wax ne effort bu ñu mën a def it problème bi mooy dañuy mas a dee te bokkul woon ci ñi gëm àllaaxira ala kulli xaal mbokk dee mi ngi nii suñu kanam nga xam ni ca la ñu jëm su ko defee suñu borom yàlla nag lam ca teg foofee moo teqale doomu aadama yi borom ba da caa teg ne innama tuwaffawna ujurakum yawma alqiyama mboolem seeni pay allaaxira dañ leen koy fay pay ba mooy lan lépp loo mas a def ci kaw suuf muy lu baax lu yàlla gërëm pay baa ngi lay xaar allaaxira loo mas a def wala nga wax ko ci lu yàlla gërëmul pay baa ngi lay xaar ci àllaaxira suñu borom nag ni koo xam ne nii fexe ne ba mucc ci ci sawara bañ dugal ko àjjana kii day mooy aji ki texe xam leen ne dunduk àdduna bànneex bu ndaw rekk la mbokk suñu borom mi ngi ñuy woo dund gi ñuy dund ci àdduna immeuble yi taxaw kaat-kaat yi lay romb tool yeeg jongama yeeg compte bancaire yi borom bi nee na loolu lu néew la amma lay fexe dëgg-dëgg mooy fexe ba mucc ci sawara fexe ba tabbi aljanna yàlla na yàlla yombal ko ci ñun ay yéen mbokk julit xam leen ne tey suñu xutba bi ñi ngi koy jëmale ci fàttali ne ñun ñépp xabru ya mooy suñu dajawaay yi alxabru mawiduna fu ñu mën a jaar tasaaro ñee nga Amérique Angleterre ñee nga nekk ca taax ya ñee dëkk ca kaw ga ñee ngay dund ca gratte-ciel ya ñee ci léegu ñax ya loolu lépp amul solo ñun ñépp ña nga nar a daldi di ca biir suuf suuf boobu nga xam ne ca lañu suñu borom binde woon suñu borom ca la ñuy delloo boolu seen gannaaw ba ca la ñuy génnewaat ñu génne yaramu neen sans immeuble sans oto sans mbubu sans dàll loolee dañ ko war a bàyyi xel minha xalaqnaakum wa fi a nuidukum wa minha nuxrijukum taaratan uxra mbokk fi nga xam ne fa la ñu jëm di jëm boo xam ne mën na am yow miy toog ëllëg ci heure bii dana la fekk ci biir bàmmeel loolee mi ngi noonu aka bari tey ay nit ñoo xam ne heure bii démb ñi ngi toog ci seen jàmm heure bii tey dugg nañ biir bàmmeel loolee moo tax ba suñu yenente sallallahu alayhi wa alihi wa sallam daanuñu wax ne aksiru zikra hazimi lazat bari leen lool di fàttaliku li nga xam ne mooy dagg bànneex yi lan mooy dagg bànneex mbokk ñun ñëpp ñu ngi suñuy bànneex yaa ngi xëy jàkkaarloog sa njaboot jàkkaarloog sa am-am jàkkaarloog say xarit yaa ngi dugg ko génn benn bis ci bis yi benn waxtu ci waxtu yi suñu borom dagg loolu lépp nga teqalikoog loolu lépp jëm foo xam ne mosoo faa xam jëm ca la nga xam ne nii mooy bàmmeel loolu rasul sallallahu alayhi wasallam daana wax ne ci kay fàttaliku day lépp lum mën a am ci àdduna dana tuuti ci moom ay lum bari la bari la bari waay gi day tuuti ci moom ay du ko yéem ba itteel ko ba mu fàtte fa mu jëm waaye ku koy fàttaliku it la nga am lu mu néew néew néew néew dana la doy soo xamee ne lu mu yàgg yàgg dama ko fi bàyyi dem dugg bàmmeel comme ni ko yelwaankat yi di waxee bari la bari la bàyyi gannaaw néew la néew la bàyyi gannaaw loolu da ngay gis ne dana doon koo xam ne nii ku lay delloo si sa xel dina dalal la te yéen mbokk julit suñu yeneen ci sallallahu alayhi wa sallam daf ñu doon ñaax ci ne ngalawaay bari leen lu ngeen di dem di ziyaare ci bàmmeel yi ndax loolu kat dana leen fàttali fa nga xam ne fa ngeen jëm yéen ñëpp ca mbokk ñun ñëpp ñu ngi jëm ci dee rasul sallallahu alayhi wasallam bu masaan dugg ci ay armeel dana leen nuyu ay waay maa ngi leen di nuyu yéen waa kër yi yéen ñi fi daje di jullit ñi jébbalul yàlla ak ñi ko gëm ñun day léegi ñu dab si leen ñi ngi ñaan yàlla jàmmal ñu jàmmal leen ay yow mbokk julit yow mi nga xam ne yaay dem armeel ya xoolal loolu fii day yow fa nga jëm wala fu mel na moom yow soxna ba fa demul romb ko xamal ne fii fa nga jëm wala fu mel na moom loolee di mbir boo xamee ni nii képp koo xam ne bàyyi na ci xel wallahi dana ko delloo gannaaw rawatina nga xamoon lan la armeel yooyu di dundee ay yow mbokk julit xam leen ni yow la nga xam ne moom nga tiim mooy ay jalu suuf am na ci ñu ñàkk a xam wuuteeg ndigal yeneen ci yàlla tabax seen bàmmeelu bàyyi wala bàmmeelu yaay taaral ko yëkkati ko peinture ko décorer ko mbokk loolu yeneen ci bi alei salaam da koo teree doomu aadama yi ñi ngi ci biir suuf donte ne ne mbokk nañu fa nekkee day lu yéeme la looloo tax Ousmane ibnu Affan radiallahu anhu nee nañ bu ma saan tiim bàmmeel du mën a téye boppam ndax ay jooy ba mujj am ko ko laaj na ko yow mi Ousmane dañ lay dégg ngay jàngal Quran di di tudd aljanna doo jooy di tudd sawara doo jooy lu tax boo tiimee bàmmeel rek di jooy mu ne waaw dama dégg yonent bi sallallahu alayhi wa sallam di wax ne lii di xabru day mooy wàccuwaay bu jëkk ca wàccuwaay yi am yowmal qiyaama koo xam ne bi nga jaaree sa biir xabru fekke nga texe ca xabru ba la ca gannaaw day mooy gën a yomb mooy gën a nekk ak texe yal na yàlla jagleel ñu ko waaye képp ku wàcc sa xabru fekk ca xabru boobee ak mbugal la ca gannaaw moo gën a tar loolu yi mooy la nga xam ne nii moo ma joyloo toog naag yonent bi sallallahu alayhi wa sallam mu ne li ma yàlla won ci li am ci àdduna yépp musumaa gis lu gën a ñàng lu mel ne ab xabru musumaa gis lu gën a ñàng lu mel ne la nga xam ne mooy ab xabru xadis boobee albani saxal na ko wéral ko loolu moo tax ba yow mbokk julit yow mi nga xam ne xam nga ne balaa yàgg lool nga dee xam nga ne boo dee dañuy gas suuf dugal la ca xam nga ne suuf soosee moom dong mooy sa lal ba ngay nar a tëddee la la fay nar a witti li mooy sax yoo xam ne dañuy lekk sa jëmm ji la nga xam ne moom nga fay xaar mooy ñu wal ca bufta ba ñuy génne la ngir war la attee ci lépp loo masoon a def ci kaw suuf ngal la way ki bàyyi xel lii dana doon koo xam ne ku fagaru lay doon dana doon koo xam ne nii ku yeewu lay doon koo xam ne adduna ak li ci biiram du ko yóbbaale ay yow nga ko julit ku nekk kenn ci ñun war nay bàyyi xel moomam bis ba may jëkk a fanaan ci bàmmeel bàyyi sama njaboot bàyyi soxna ya bàyyi lépp daa di dugg man dong mag sama bàmmeel moom mbir boobu naka lay nar a mele mbokk loolu lu tar la loo xam ne borom xam-xam ya jooyloo woon na leen nit ñu baax ña tee woon na leen a nelaw nekkoon na loo xam ne kuy xalaat war ca xalaat yaa ngi jëm ci benn jardin ci jardin aljanna wala nga nar a jëm ci benn pax ci paxum sawara di mbir moo xam ne nii doomu aadama bi waru koo fàtte benn yoon sunu yonente sallallahu alayhi wa sallam ndax daa sunnal ci ñun ne rek dee leen muslu ci bàmmeel wala mu ne bus ba ne musul leen ko bal bokk na lum sunnaal ci ñun amul benn julli bu jullit di taaya lu dul yonent bi ne boo taayaa ba julli ci yonent bi ngal la way del wax yàlla yal nañ ma musal ci mbëgalu bàmmeel yal nañ ma musal ci mbëgalu jahannam yal nañ ma musal ci fitnay dund ak dee yal nañ ma musal ci fitnay masihi dajjal mbokk bàmmeel mi ngi noonee doomu aadama bi lépp loo mën a am ci kaw suuf ngan la way xamal ne foofu mooy sa kër kër yi ñu dëkkee kër yi naxaate la loolee ñu bàyyi ci xel bu baax suñu kër dëgg dëgg dëgg ma nga ñuy xaar fëri ca la nga xamee ne nii moom mooy bàmmeel ya na doon yoof la wala na doon foo ko mën a tuddee looloo tax amirul muminin omar ibnul xataab radiallahu anhu heure bu mësaan dugg ca pale ba nga xam ne dañ koo jagleeloon buur yi fa la ñuy àttee daaw fa dugg mukk lu dul mu jàng aay bi suñu borom di ñuy fàttali afaraaytum in matta'nahum sinin ثم جاءهم ما كانوا يوعدون ما أغنى عنهم ما كانوا يمتعون أي واي من يخنا خمو ني سما لين باني خلون أي أت dund nga ci kaw suuf junni at yoo xam ne musoo feebar musoo am problème mboole mi xéewlu àdduna dajale nga ko bis bu la dee dikkalee bànneex ba nga doon bànneex du la mën a jëriñ dara ci àdduna loolee radiallahu anhu daana ko wax ngiree nguuram bañ koo wor ngiree àdduna bañ koo wor lii mbokk da ngay gis ne ku nekk war nga cee bàyyi xel ali ibn abi talib radiallahu anhu nee nañu heure boo xamee ne nii bañ ko demee ba mu jég ne moom mooy responsable julit ñëpp jiite leen daana nekk guddi gi jooy naa ne ay àdduna waaw yaa ngi ni de taaru jëm ci man ilayya tazayyanti faalami anni tallaqtu qisalatan la rajata badaha ay àdduna yaa nga taaru ni jëm ci man de waaye man day fase naa la ñetti fase yoo xam ne nii dellu si du mën a dellu si ci yow ci ci ñun ca bokkoon na ci yonent bi alayhi salaam béggaloon na ko yow àjjana nga jëm ay yéen mbokk julit bari leen lu ngeen di fàttali ko bàmmeel bari leen lu ngeen di waajal yëm ca bàmmeel arabia ibnu xaysam bokkoon na ci taabiin bokkoon na ci ñi boole woon xam-xam aga jaamu yàlla gu gu nit ñi ràññee woon nee nañ dafa gasoon benn xabru ca la nga xamee ni nii mooy benn néeg wanagam heure bu mosaan dem ba àdduna xaw koo yitteel mu bàyyi ba xaaju guddi mu ne dem dugg ca biir bàmmeel ba daa dina ah xaysam fii nga jëm de fii nga jëm de bu fa toogee xalaat xalaat ba mu yàgg daa dina rabbi irjiun ay yàlla may ma ma dellu àdduna ngiree ma mën a def lu baax ca loolu la suñu borom yàlla wax ne képp koo xam ne dugg nga ci bàmmeel ca ba nga fay dugg yóbbu woo ngërëmal yàlla da nga wax rabbi irji'un la'alli a'malu salihan fi ma tarakt da nga ne yàlla may nga ma dundaat ngir def lu baax la ma bàyyi gannaaw suñu borom dana la tontu ne le kalla innaha kalimatun huwa qailuha wa min waraihim barzaqun ila yawmi yub'asun dara loolu kàddu la koy wax rek li lay xaar kay mooy bàmmeel bii ngay sax ba baa bis bu ñu lay dekkal amma rabia su ma saan toog ay yàlla yàlla delloo ma yàlla delloo ma ba mujj mu daal di jóg taxaw daa dina voilà rabia yàlla may na la occasion delluwaat nga ci àdduna na nga fexe nag ba xool looy liggéey bala ngay delluwaat fii dellu goo xam ne kenn du la jox occasion dellu siwaat su ko defee loolee mbokk ñu daal di koy gis ca yokk gam doon yokk la nga xam ne mooy ak jaamu yàllaam ay yéen mbokk julit suñu borom yàlla day bokk na ñetti kër yoo xam ne am na ko kërug àdduna gi ci la ñu nekk muy kërug liggéey am na kërug allaxira muy kërug pay yu mag ya waaye am na kërug intermédiaire bu ñuy xaar ci diggante bi mooy la nga xamee ne nii mooy lii ñuy tudde bàmmeel mi ngi noonu suñu yenente salallahu alayhi wa sallam ca la nga xamee ne nii suñu borom yàlla dana ko wax ca njabootu firawn nee na njabootuk firawna day bus bu nekk daañ leen gaaral sawara di leen mbugal bu yowmal qiyaamee nag ñu doog leen a tabbal ca gën a tar ca la nga xam ne muy mbugal albara ibnu azib radiallahu anhu nee na day suñu borom yàlla wax jami wax ci ne dana dëgëral ñi nga xam ne dañoo gëm ci kaddu gu sax ci dundug àdduna ak dundug alaxira yàlla nga ko wàcce ci li mu waajal ci mbëgulum bàmmeel li ngi noonu su ko defee képp koo xamee ni nii dugg nga bàmmeel bokk na nattu yu la suñu borom di nattu yónnee la ay malaaka malaaka yi ñëw laaj la ma yow kan moo nekkoon sa borom kan moo nekkoon sa yonent laaj li diina ba nga doon dund su ko defee bu doon jaar nga fa neex yàlla suñu borom yàlla moo lay dëgëral sa tontu leer nga ne man yàlla rek laa doon jaamu maa ngi nekkoon ci diine lislaam muhammad sallallahu alaihi wa sallam mooy yonent bi yàlla yónni woon ci min moom laa gëmoon tapp ko su ko defee suñu borom ne malaaka yi sama jaam bi wax na dëgg looloo tax ba yonent bi alayhi salaatu wasalaam heure buñ masaan suul néew ba pare li ñu miin ci sunu armée lii fatiha ak ñeent fukki lixlaas ak benn juróom-ñaari inaan zannaaw fukki lixla ila axiri mbokk loolu dañ koo sos gannaawam waaye lam daan wax sallallahu alayhi wa alihi wa sallam istaghfiru li akhikum wasalu lahu tasbih fa innahu alana yusal ñaan leen yàlla jéggal seen mbokk bi ñaan leen yàlla dëgëral ko ndax léegi ñu koy laaj bu réussir ci laaj yi texe ne ba faw bu échec ci laaj yi perte na ba faw loolu kon la gën la ñuy ñaanal ku ñu ku ñu faat mooy allahuma ixfir lahu allahuma sabbithu yàlla yàlla na nga ko jéggal yàlla yàlla na nga ko saxal et yéen mbokk julit suñu yeneen bi salallahu alayhi wa sallam day bokk na lum ñu wax mi ngi ñuy xaar ci bàmmeel mu ne heure boo xamee ne nii julit bi faatu na ba malaaka yi ñëw laaj ko laaj yi yàlla santaane ñu laaj ko mu tontu ko na yàlla gërëme daañ ko ubbil benn fenêtre ne ko gis nga kër gi la yàlla waajaloon ca sawara bu doon te ne jaaroo fi nga jaaroon ci sa dundug àdduna waaye daaju na ko wëlbatikul xool gis nga kër gee nga xam ne mooy aljanna pale yële ak tool yële ak la fa nekk ci xéewal alaxira fa la la yàlla yóbbu bu ko defee dina na déet yàlla na alaxira am léegi léegi léegi ala kulli xaal mbokk mi ngi noonu bu dee contraire ba yonent bi salallahu alayhi wa sallam nee na malaaka yi day bu ñu laajee ab saay-saay la nga xam ne moom lay tontu mooy hëh hëh man daal li ngeen di wax xawma ko buñ ko laajee mu répété loolu ñu ne ko waaw yow nga ne lan mu ne daal li nit ñi doon wax daal wax naa ko su ko defee ñu ne ko ha ha yow day laa darayta wala talayta musoo xam musoo laaj nee na dañ ko dóor ci benn bolde boo xam ne lépp loo xam ne nekk na wër armenia dana dégg dóor boobee nga xam ne moom lañ ko dóor ak yuuxu ya nga xamee ne nii moom lay àndal loolu moo tax ba yeneen bi salallahu alayhi wa sallam daan wax lawla an la tudfinu la daawtu llaha an yusmiakum azab al qabr bu dul woon ak damaa ragal kenn ci yéen dee ay mbokkam duñ ko suul danaa ñaan yàlla mu déggal leen mbugal yiy jóge ci biir bàmmeel yi loolee kon mbokk di mbir moo xam ne nii mbir mu tiitlu la xadis boobu imaamu muslim solo na ko loolu moo tax góorgóorlul ci lépp loo xam ne day jur merum yàlla mbokk bépp bàkkaar bu ko xeeb ak lu mu tuuti tuuti mën na laa jural mbugalum bàmmeel rasul sallallahu alayhi wa sallam romb na ñaari bàmmeel yu ñuy mbugal mu ne ñii de ñu ngi leen di mbugal waaye mbugaluñu leen ci lu màgg am borom xam-xam yu jàpp ne la yonent bi alayhi salatu salaam wax mooy mbugaluñu leen ci ñoom luñ jàpp ne màgg na waaye nekkate lu màgg la kenn ci ñoom da daan dox ci rambaaj ki ci des daan def bu demee ca wanag ba du fagaru day bàyyi saw mi di tuuru ci ay yaramam su jullee julligu du baax loolu moo tax ñu koy mbugal mbugal yu tar loolu ngalla way mbokk nañ moytu sàggane laab nañ moytu sàggane julli nañ moytu ay fen nañu moytu njaalu moytu leen sàcc moytu leen riba moytu leen lépp loo xamee ne nii day jur merum yàlla ndax loolee day tax ba doomu aadama yi dañ leen di mbugal xam leen ni ñu niiw ci doomu aadama yi ñooy mucc ci mbugalum bàmmeel loolee bàyyi ci xel bu baax yow doomu aadama ca loolee la la ca may na musal du lenn lu dul la nga nekkee woon ci kaw suuf yaa ngi nekkoon yow doomu aadama sa biiru yaay yi sa borom yàlla ci xéewalam fekke la faaki xéewalam lépp la nga aajowoo moo la ko fa defal ci amul woon lenn loo ko defal amma boo duggee ci biiru suuf bu boobaa dara du la fa fekk lu dul loo xam ne nii da nga koo sabablu woon ci kaw suuf ngal la waay nañu bàyyi xel loolu di bàyyi xel suñu bopp adduna bi bañ ñu yóbbaale nañuy nafaraat bu baax la nga xam ne muy suñu dund doomu aadama bi war nga guddi gu nekk ngay bàyyi xel lan laa def ci bëccëgu tey bii di bàyyi xel ne kat mën na am waxtu wii ma toog day waxtu suba bi dana ma fekk sama biir bàmmeel lii day képp koo xam ne nii dana koy bàyyi xel ngal la waaye dana ko dimbali bu baax rasul sallallahu alayhi wa sallam mu ne yaa ngi ànd ak say jegeñaale mbokk ya xarit ya dëkkandoo ya yaa ngi ànd ak sa alal ak lu mu yaatu yaatu yaa ngi ànd ak say jëf waaye bisi ngi ñëw bisi ngi ñëw yaa ngi jëm ci bàmmeel soo demee ba dugg ca bàmmeel mbokk yàlla gunge woon ak xarit yi dañuy daal di dëpp ñoom daal di dellu ca seeni programme même bu doon doom yi nga jur même bu doon soxna yi nga nekkoon sa kawlal amma alal ja nga bàyyi woon dañuy daal di commencé di ko séddoo mën na am sax ñu xëccoo ca rayante ca yow looy dese dese woo lu dul sa jëf loolu moo tax ba nga la waay soxna yeeg doom yeeg jege ñaala yi alal jeeg lu mu mën a doon bum tax nga fàtte sa bopp bul tax nga fàtte la ngay mujje te mooy la nga xam ne ni moom mooy jëf ju baax nañu góor góorlu jéem a roy yonent bi salallahu alayhi wa sallam ca na meloon ci ragal boroomam ca na meloon ci di fàttali ko fu mu mën a tollu dee ca na meloon di ñaan yàlla saxal xolam boobee bañ koo dévier abadan ba baa muy dajeeg moom fekk ne mi ngi dajeeg moom ci ngëm ngal la way mbokk julit xam leen yéen a ngi nekk ci occasion boo xam ne wallahi ladi la ilaha illa hu ña nga xamee ne ñoo tëdd tey ca yoof buñ ko amoon moo leen gënal ay milliards ñu dellu woon ci kaw suuf mën a julli benn farata mën a wax benn la ilaha illa allah mën a wax benn subhanallah mën a wax benn astaghfirullah wallahi moo leen gënal lépp loo xam ne nii am nañ ko ngal la waaye mbokk di leen bàyyi xel ci loolu ci occasion bii leen yàlla subhanahu wa taala defal ngeen di dund ci kaw suuf di dund goo xamee ne nii kenn xamul ana naka lay jeexee ca bu jeexee foo jëm yaa ngi jëm ci loo xam ne muy bàmmeel ñaata nga fay def suñu référence ñun ñëpp mooy suñu yonent sallallahu alayhi wa alihi wa sallam ñaata at la dund ci kaw suuf 63 ans la dund ci kaw suuf ñaata at la defagun ci bàmmeel 1430 la def ci bàmmeel suñu atum ren mi junni at ak ñeenti téeméer ak fanweeri at yeneen bi ak la ëpp ci ay sahabaam def nañ ko ci biir suuf ca kaw suuf lan la fi dund sallallahu alayhi wa sallam 63 ans te daana wax ne sama xeet bii day seen dund mi ngi nekk diggante 60 ans ak 70 ans lu néew ci ñoom ñooy génn loolu lii kon mbokk képp ku ko xam dana góorgóorlu waat bàyyi waat xel boole toroxlu ci kanamu boromam di ñaan ci boromam ngir yàlla rafetal ak mujjam la am solo muy mujj gu rafet yow ndaw loo mënoon a nekkee ci bakkaar loo mënoon a nekkee ci musiba tuubal bisub tey dogul bisub tey jëm ci sa borom heure boo dee ci loolee ca loolu la la yàlla subhanahu wa taala di attee yal na yàlla rafet rafetal suñu mucc yal na yàlla may ñu aafiye fi dunia wal axira yàlla bu yàlla wëlbati suñu xol yal nañu yàlla faat ci baatu la ilaha illa allah yal na yàlla musal ñu ci mbugalum bàmmeel defal ñu ko jardin ci jardin àjjana yi yal na yàlla yombal suñuy xisaab yowma diin daje la ñu firdawsul aala muy suñu mujjeelu daje wa sallallahu wa sallam ala nabiyina muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajmain